thank you ñu gis fi nga xam ne mooy caaro yi euh, ñu ne ndox bi ndoxum géej bi daa am benn produit toxique bi ñu ci def ba am xale yi am feebar ay bouton ak yooyu noonu tey yéen ngeen doon ay activiste nekk si boobu ak léegi si xeex bi su ñu demee ba si Sénégal ñu dégg loolu en tant que nan ngeen koy jàngatee. waaw ni ñu koy jàngatee mooy euh, euh, sàggan nañu parce que buñ la nee signé nañu licence de pêche signé nañu ay accord joxe ay licence de pêche. donc amatuñu contrôle ci suñu géej gi euh, ñu ne 45 bateaux la ñu autorisé pour ñuy dugg ci géej gi di napp mën na nekk loo xamante ni sax ñooñu ñu autorisé mooy espagnol yeeg français yeeg yooyu ñu autorisé ñuy napp ci géej gi sotti fa seen produit toxiques yu bon pour empêcher à nos pêcheurs artisanaux maanaam ñi nga xamante ni nappum local la ñuy napp pour ñu bañ fa dugg te man loolu laa gën a gëm. parce que instant bi nii euh, Europe dafa nekk ci lépp loo xamante ni luy rey africain yi la mais je di bien ak complicité wu suñu président de la république muy Macky Sall je dis bien ak complicité wu suñu président de la république muy Macky ni ma ko jàngatee te njortu gi ma ci am mooy loolu ñoom tubaab yu bon yooyu ñoo ci sotti seeni produit produit boo xamante ni day tax xale yi dootuñ dugg ci géej gi ndax c'est bizarre géej goo xamante ni biñ juddoo ba léegi di fa dugg xëy bés dugg ci rek ñu commencé euh, am ay feebar yu leen di dal te loolu kañ la c'est le lendemain bi nga xamante ni si renouvelé waat nañ accord de pêche bi ci la am kon xel war na ca teey di wax suñu doom yooyu ñu def ndànk bàyyi géej gi tuuti ñu étudier xool problème bi lan la